ñu ko waxee guddi mardi mercredi ay 4h22 du matin la ay malfaiteurs ñëw dugg sama kër ils étaient lourdement armés yor ay fetal ay jaasi tiire ay balu fetal ah, waaye yàlla def na su ndox mu sedd ba daal kenn faatuwul waaye gaañ nañ sama benn rakk bi nga xam ne moom wari la yor dañ koo dóor raskuli bi ñu yoroon jël ci moom trois cent et quelques mille ndax moom ci wari lay liggéey moom ak benn sama benn frère moom tamit wari lay liggéey jël nañ ci moom euh, six cent et en liquide sama beneen mag bi nga xam ne mi ngi liggéey Touba gaz ñu koy wax Fayka Sidibé moom tamit jël nañ si moom trois mooy argent liquide bi à peu près un million et quelque sans compter portable sans frère bi Cheikh Sidat mi nga xam ne jël nañ portable bi te si wari bi rek ay compte bi deux millions et quelque mi ngi ak carte bancaire ay pièces pièces d'état civil am mi ngi waaw ñoom biñ dikkee quatre fekk sax man ma jug bëgg a sama rakk bi dégg leen comme dañuy am ay waa yoo xam ne ni pour euh, bu ko dugg si kër gi rek ñoom ñooy prévenir si si lañ yéegee affaire ñu jëkk ñu jàkkaarloo ñoom ñuy yuuxu ñu yor seen fetal di dóor di dóor di dóor di dóor par la suite lañ woo police police ñëw na mais tardivement biñ ñëwee tardivement ñoom fekk na def nañ li ñuy def ba pare ba génn police jéem na leen a kii sax mais euh, en vain jàppuñu leen waaw mais nga wax dëgg yàlla kenn deew fi mais nag gaañ nañ fi sama frère bi ma lay wax noonu te yóbbu nañ xaalis bu takku image rek wane na ko yor nañ ay rasclo ay matériel boo yakaar daal yor nañ ko ils étaient lourdement armés moom waaw nag dañuy ñaan yàlla daal di ñaan autorité sénégalaise ne pour ñu renforcer sécurité waxuma sax Mbàkke rek mais ñun ñëpp xam nañ ne léegi Sénégal moom kenn amatul sécurité da ngay nekk sa kër doo am sécurité ngay nekk si mbedd bi amuloo sécurité rien que bërki démb rek sama soxna bi bi muy dem marché am na deux malfrats yu ko attaqué doon ko laaj xaalis bi heureusement moom tamit dafa amoon vigilance jël xaalis bi dugal ko si lafu sëram mu dese 400 yi finalement 400 yi lañ jël te tey euh, lii arrivé tey xam nañ ne bërki démboo Njaay attaqué nañ fi ñaar station fi à station Touba bi euh, Touba bi nekk fii si sortie bi ak ba nekk Elton attaqué nañ ko léegi kon ñun à quoi nous sert la sécurité yi nga yu bëri ndax waa ji carabine la yore tiire ndax ñi ñu ngi jàkkaarloog moom muy tiire yor carabine di tiire lu mu bon bon na tiire une bonne dizaine de balles ndax benn balle bi sax d'ailleurs yàllaa si def ndox mu sedd mais sama nopp bi la frôlé dal ci porte bi yow gisal nga ko sa bopp impact balle yëpp boo gisee sa film bi dina ko génne dóor ay balle fetal yor nañ seen i jaas yi ak seen i raaskuloog ay yooyu dajji kër gi ñi dugg ci biir kër gi rek sett lañ ah, am na nag léeg ñu nekkoon si entourage yi parage xam naa certainement pour nekk ay veille mais ñi dugg ci biir moom sett charette daal moom dégg naa ko ndax après sa parenteeru néeg laa kii gi dégg charette bi di jàll matériel mën naa ne portable la ñu yóbbu à part loolu euh, kii bi daal xaalis la liquidité liquidité mais euh, portable bi ñu yóbbu nag si la yeneen somme bi nekk ndax wari la ko ndax da koy def si compte wari waaw. waaw li ñaan daal mooy nañ ñu dimbale sàmmal ñu autorité ndax buñ ne sécurité sécurité moom wax dëgg yàlla ba le rôle la police dañu ne sécurité sécuriser la les personnes et bien biens bu ñu demee ba nga xam ne du ma indexé police du ma ne fayiruñ ko mais nag wax dëgg yàlla xam nañ xel ne ne sécurité bi doyut buñ ko mënee yokk ñu yokk ko dëgg la police ñëw na mais nañ ko mën a yokk daal ndax wax dëgg yàlla nit ñi yëpp seen bakke nañ si xottu gerte kenn nelawatul ba yandoor ndax fooy delaw yaa ngi xalaat ñu war laa agressé boo doxee bëccëg yaa ngi xalaat ñu war laa agressé kon ñun buñ ne ab pays buñ euh, sécuriser la man damay jaaxal waaw effectivement biñ ñëwee dañoo man dama tëdd si néeg bi dégg wuub sàcce bu ma ne wuub sàcc dégg wuub sàcce ma taxaw si fenêtre dégg gars yi wax ci ëtt bi espace familial bi foofu noonu ma génn génn ak nuyu laa génnee sax gis sama frère bi wax léegi nii mu yor benn jaas dinaa leen soo duggee ma nangam seen ndaay ma ne dañoo dugg ci kër gi ma daw dugg si biir kër gi si néeg bi bu ma sama petite na ko duggal ñu tëj ñu tëj ma caabi buntu néeg bi ma dugg si suuf ma ne sama sœur duggal si suuf lal bi moom elle a refusé mu toog ci kaw lal bi ba gars yi duggee man maa ngi suuf la ñu génne soo yi fa nekk sotti soo yi daan ne ne gis daj sama oom. di làmb daj sama oom mu dajee sama oom daan ne ani xaalis ma ko ñu yoruñu xaalis mu ne bi ani xaalis yaa mun a fen yor nañ bi saaga na ko sax nday insulté na ko na ko nangam baa ngi ci kër gi mu ne ñu yor mu ne ko ko man dama tee tëdd nekkuñu fi xaw ma fuñu ne man dama tee tëdd xaw ma sax fuñu ne mu ne ko an sa téléphone mu ne ko ñoo yoruma téléphone bien avant maa ngi jël sama di woo benn sœur fee maa xewal pour mu woon woote ñu police parce que amatuma woon crédit ma woo ko demut si la moom mu woo ma ne ko woo police mu woo benn policier kook ne ko di mu tegtal ko mais tegtal bi ak tiitaange gi xam naa moo tax policiers yi réer gaa policiers yi ils ont fait leur maximum def na lu ñu mën ak lu ñu mënut lu ñu mënut parce que dépassé nañ dem nañ ba station bi wër nañ foofu gis ñu ko par la suite dañ ko gis ñu ñëw biñ dugg seen ñu waxee sama sœur bi tamit nee na ko ne xaas baa ngi ci kër gi ñu ne ko ñun yoruñu xaas mu ne ko sii xaas baa ngi kër gi si la kenn ki jug na ko sii xaas baa ngi ci kër gi ñu insisté ñu mu insisté ñu ko xaas ba mu ne ko kii bàyyi xale kenn ki daa dugg na ko bàyyi ñi ay jigéen lañ ku yor xaas mu ngi ci beneen néeg bi kon ci la ibbi dugal raas ko ibbi sama néegu fere mu taqaloo néeg ibbi ko ñëw fekk ko fa laaj ko xaalis bi fekk ko jël na doom doogu suuf suufalal bi bi mu ko laajee xaalis bi ko noo ma xaas mu na ko bu leen laal a huit la am mu moom tamit génn neen jox leen ma caabi pour mu ne ko noonu waxuñu la lool xam naa ñoo yaakaar ne su jëlee caabi day génn pistolet wala dara mu ne ko noonu wax ñu fu mu nekk rek wax na xaas bi fii la nekk rek fi muy waxee ñu fël la ko rek ibbi jël xaas jël saag bi jël nañ som nag som nañ jël nañ som bi mu paree nee na ko carrément ne ko ani ki nga doon àndal kon c'est-à-dire woon xam na ni kii am na ko mu doon àndal bi mu ko am ku mu àndal rek daal di kenn gaa wub ibbi sa beneen bi mooy ki muy àndal ñu yor wari mu ko ibbee jël doom ji doogu si néegu ki mu njëkk a kii bu mu njëkk a ibbi daan na ko andi xa kooku di riposté mu dóor ko mooy kenn yéen filmé sànq na ko ras ci bopp bi dóor na ko ci ci loxo bi mu am problème. man dañ tëdd ay bor quatre heures vingt deux soo ma dégg suma raq bi di yuuxu sàccee si laa tëpp génn am ma tëbee génn ma gis gaa yi ñu ngi groupe si biir kër bi soo xamul may def si laa dugg sama biir nekk jël sama téléphone bi doon oot suma mag bi ku nekk fale mbaa mu jox benn am na benn góor bu nekk fa police la pour mu jox ma numéro soo si laa ko woo ba ma ko woowee ba sonn mënu ma ko jot si laa xam ne ne lii moom jëmul kër te yii dañ dugg si biir biir kër bi si laa def ni ma daw dugg sama biir néeg tëj moo tëjee sama mbir néeg ma dugg sama suuf lal bi ma dugg sama suuf lal bi ma dégg gars yi dajji nañ bunte bi ma dugg si biir ma duggee si ba duggee si biir daj sama mbir néeg ñu xool xool gis ñu kenn ndekete man maa man maa ngi woon si biir soo si la di gars ne fii kenn nekku fi xam nga soo après seen dem ñëwaat si yeneen am ku ñëw yërlu gis ma maa si kii maa ngi si suuf lal bi waaye ma ne suuf lal bi soo ko si suuf lal bi si la ñëw ba mu ñëwee ba ma xëccee si laa door dóor ba ma ko dóoree si la keneen ki daw ñëw ñëw dóor moom si la nii si la dóor sama loxo bi nii si la neewee nii si laa nekk di wax ne ñu ma ana xaalis bi ma leen aw ma xaalis si la ma dóoraat sama bopp si laa génnee fekk maa ngi ma génne xaalis dama sëq rek leen ko si laa ana keneen ku ngay àndal ma ne kan laa àndal am nga koy àndal anamu borom borom moto bi si laa ok baax na la ma jàpp nii si la ma jàpp dugal ma si biir néeg su ma benn néeg raq bi si dem fekk sama raq bi mu ngi suuf lal bi moo dem ñu dóor ko ne ko ana xaalis bi mais ne ko ana xaalis bi la xam ne noo weytu wee kii moom xaalis lañ bëgg si la jëleen jox caabi bi ne leen ubbi si lañ jël saak bi jël xaalis bi dem soo si diggante ba ñuy dem nag si la police ñëw mooy police si lañ la wax ana la police sax ñoom ñëw nañ ba fii waaye xamuñu ne si bi la waaye ñoom gis nañ ne am na gars yi ñu ngi génn dem waaye dañ foo ne suñu waa waa bi la waaye après si lañ doog a xam ne ñii duñu daw topp gars yi bañ day topp gars yi si la gars yi dugg si ñax mi xamutu xamu guddi la duñ mën a xam ñan la soo bañ day topp noonu man tamit ma génn daw topp gars yi ndaxte am na ñu desoon fii soo si lañ dëppaat bañ dëppaatee di ñëw nii ndaxte ñoom dañ nëbbu doon si ñax si ñax yi fii buñ nëbboon si ñax yi si la police fag ne dañ condamné ñu neñu condamné bañ condamné am na ñeen ñu si suuf yenn police nii sañ dóor police yi police yi du mooy xam nga daaw nii doo dañu leen police daaw doo dañ police yi si la police daaw def nii après si la si la nag si nu mu guddee si la nam gi ne police mënuñu leen a gis loolu mooy affaire police bal ñaari police yi nekkoon fii ñoom xam nga dafa am ñeneen ñu dem am ñoo xam ne dañ ñëwoon doon garde la gars yi dóor bal am nañ temps am nañ fi mën naa ne ay 4 heures 4 heures 22 lañ fi ñëw 4 heures 22 mën fi mën naa ne ay 5 heures lañ fi jógee daanaka am nañ fi 30 minutes dëgg la police yi ñëw nañ sax waaye bala ñu ñëw day fekk gars yi def nañu def pare dañ xamul woon yoon bi moo tax suñu xamoon yoon bi rek dañ leen fekk si biir man weñ lañ ma dóor weñ weñ ku raas kuur ma dóor ndax dama man sax benn soo gisee ñu dóor ma sax ndax man dëgg la man mën naa la man moom mën naa suñu kër moom man moom suñu suñu may rey may waaye moom moom dee rek te xam naa ne man maa la waxante te dinaa ko def waaye boo ñu xam Sénégal yëpp xam nañ man dinaa ko def dinaa jënd fetal te du ma tàggu benn police du ma tàggu benn police mën naa ko wax